مولد معصم مبارك محترم تحسيمه ينهتم على سبيل تقدم تحسيمه بسنتي يقودنا للجنة بزياد المنة لمعلسي معزمي bismillahi irrahmani irrahim salaamun min allaahi aleykum wa rahmatuhu wa barakatuhu yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu nekk ci biir réew mi ak bitim réew bu ngeen gisee jataay bii ci barab bu tedd bii ci abiyaat yu tedd yi nga xamante ni moom ngeen doon dégg léegi xel yépp dee dem ci alayhi salaatu wasalaam borom laylatu mawlidi nabi bis yi nag moom lañ fas yéenee waajal neen ko daan waajale ak mu nekk fii ci Taif reen sàng bu tedd ba Cheikh Ahmadul Moustapha gis ngeen jotaay bi rakkam yu tedd yii Cheikh Ahmadul Baara ñu ngi ñaan su borom dolli ko wér dolli ko kàttan ci ànd gi mu ànd ak magam ji ne ko dann déggal ko déggoo ak rakkam man koo yëgoo waaye nag jiite mbooleem donga yi rawatina section ci biir Sénégal ak li ko wër yëpp ñaan su borom yàggal ab jotaayam ak Cheikh Ahmadul Fadilu mii ci wetam. ñu ngi siyaar itam ki nga xam ne mooy soxna moom i Mbakke day doxee doxinu ku ñu moom it bi jàmbaar lool mi ngi fii ci jataay bi ñu ngi koy siyaare bu baax a baax ak mboolem section yi xam ngeen ne nag gàmm gii ñuy woote ñu ngi koy wootee fii ci Taïf waaye nag tax taxsimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bi istiyaadil minnati li muxlisin lu mat a bàyyi xel la loolu la sëñ bi fonk lool bëgg ko lool defe ko nu ko sëñ Tuubaa doon defee ci gàmm gi looloo waral Cheikh Mouhamadul Moustapha Bassir Lo mi nga xam ne nii baaxoon nañ muy jàng bar sa bi moo fas yéenee wax ci kaddu Cheikh Mouhamadul Moustapha insha allahu taala bu noppee dana jox kàddu gi Serigne Ibrahima Thiam mooy wax ci turu Ahibaul Khadim li nusrati diinil xawim gépp nag incha allah bu ci jógee Serigne Cheikh Kane mi nga xam ne mooy wax ci section Taif ndax ñoom kat naka jekk ñooy dalal gan ñi ñooy teeru gan ñi ñoo leen di tatagal incha allahu taala mun ci jigee ci tollu soxna yi soxna Bese Ndiaye mooy wax ci turu soxna Mambousa mi nga xam ne moo jiite mboolem di jàmbaar lool yàlla ak suñu borom dëgëral ko kàttanal ko mbokk yi woote boobu nag leen ñëpp bëgg ñëpp bàyyi ko xel muy gàmm gi nga xam ne moom la ñuy woote fii ci Taïf ren dëpp ak juróom-ñeent juróom-ñeental bi yoon ñu daal jox kàddu ki nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadou Moustapha Bassirou Lo bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen di jot jottali nuyoo cheikh Mouhamadul Moustapha Mouhamed Mbacke waaye nuyoo boobu nag ak i ñaanam mu di ci jiital kii fi nekkal sëriñ Touba Khadimou Rasoul di ak cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke Serigne baa ngi lool sunu borom yàggal ko ci sunu kanam nu yàgg ci gannaawam ba lépp lu mu bëgg liggéey sëriñ Touba ak lislaam yal na ko amee na mu ko bëggee tan ànd ko ak moom. noonu lay ñaanal itam ak cheikh Ahmadul Mokhtar Mbacke mi fi nekke nekkal ak cheikh Mouhamadul Moustapha. ak sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Mbacke Madina mii jëwriñu kër gi waaye nag ki nga xam ne mooy jëwriñu barab bi di Cheikh Abdourahman Mbacke ibnu Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma noonu it lay jottalee ab nuyoom ak i ñaanam ci mboolem buntu këri sëriñ Touba yëpp ni mu ko faral di waxee rek te yéene ñëpp rek am tawféex sëriñ Touba ca fa leen sans borom samp ngir ñu liggéeyal yàlla foofee bu loolu jàllee nag Cheikh Moussa dafa wax ne mu ngi fàttali nag guddi gi nga xam ne moom lañ dëgmal. di guddik feeñu yonent bi alayhi wasallam yaari bir am ci fatali ko jëmmi guddi gi ci waye nak fatali ko ci ki nga xamné mo ci feñ guddi gi mooy laylatu mawlidin nabi la serigne bi wax guddi gi nga xamné ci la feñ kon day guddi barkel ndax la ci serigne bi wax bari na lol ci ci guddi goog yi la ci yàlla def ci ay tawfiq waye ki ci feñ li tax yàlla yebal ko moy yërmande wa ma illa rahmatan lil alamin kon yaar yooyu la ñuy fàttaliku muy jëmmi guddi gi mu feeñ nga xam ne adduna sépp yëngu na keroog ngir leeram ku màgg googee waaye fàttaliku nag moom moom jëmu ju teddu joojee te sëñ Tuubaa it bëggoon ko lool soppoon ko lool ba yemale ko woon a dara ba joxoon ko léppam fonkoon bis bii lool itam Cheikh Moussa Mohamed nag wax ne mi ngi nuy fàttali bu baax bis bi fa sakkiri in nafaati zikra mi ngi nuy fàttali bis bi bu baax dinu ci soññ waaye nag dinu ci woo kon na ñëpp jàppale eh, jàpp yett yooyu mi ngi koy mi ngi koy fàttale mi ngi koy soññe mi ngi ciy woote loolu yi nag mi ngi ko jëmale ci képp ku bëgg lu baax waaye nag xaasatan ahibaul xadim li nusrati diinil xawim nga xam ne moom dafay faral wax ne képp koo xam ne nooy sa bunt ci sëriñ Touba fa sa yéene ànd ak nun liggéey bi ndax liggéey bi di jumtukaayam te ànd bi mooy nun ñi tam santaane it wax ne Ahibahil Khadim day la joxul ndigal te mi ngi koy fedd it ne bis bi lu ñu ko gënoon a taxaw rek nañ ko gën a fonk ginnaaw boo xam ne am na cant yu wóor ci bis bi jàll di assuruna muharram te yaari yëpp mu boole woon ko takk ko new say teg ko ci loxoy Ahibahil Khadim ne dee ma ko taxawul waaye nag mu ànd ko ak noonu kon sëriñ bi ne mi ngi feddaliwaat taxawaay ci ci bis bi ci nañ ko daa defee ginnaaw ba ci santee te ñaan ca bu baax a baax di ko fàttalee te di ca soññee itam nee lépp loo xam ne sunu borom tabaraka wa taala daf ko doxé ci bis bi muy jariñ doomu adam muy jariñ julit ñep loolu mi ngi ñaan suñu borom yalla nañ ko yalla defal nee nak nag képp koo xam ne yaa ngi waaj ngir ñew ci bis bi mi ngi lay diggal nga nga nga nga yore waajtaayu pas-pas ak waajtaayu passif ak waajtaayu fës fassiyene jariñ nee nak ñepp nak la wo rawati nak ko xam moy su burtu seigne touba fi la ko fassiyene defé ci taif fassiyene ko and ak ñu ba tax na kuy ñew ku nekk rek na nga and ak pas-pas and ak passif and ak yar and ak ay teggine tay te rax sa ndab bu baax a baax te ne la koy duy mi ngi fi tay ndab yëpp it insha Allah taala luy dem da nga fangat kon mi mi ngi ko mi ngi mi bëgg ak ak soñé ci pas-pas yooyu bu nak sét nan xam bis bi mom daf koy gatanu nee da koy gatanu gungé ko gatanu gungé gi nak moy sa bo xamee ag nañ ci alarba ja ci fukki fan yi ak ben bu julé suba rek ba bañu julli wat suba ci alarba jojé nga xam moy guddik gamu gi di guddik alkhamis ga yaari fajar yooyu mu nee mom sëriñ bi nee na loolu mooy liggéey bi kon ku accès rek na xam ne bëccëg bi ci ci liggéey bi la bokk njàng mi ak la ci la ci digg lépp ak bernde ya ak lépp loo xam ne bis bi laaj na ko nee na it képp koo xam ne yaa ngi ñëw it loo mën a faggandiku ci lay la nga xam ne mooy tax bis bi nañ ko santaane ak nañ ko bëgg moo amee noon loo ca mën na ko ca def ndax bisu bernde la bisu jàngal jàng xasida yi la bisu tudd yàlla la yooyu yëpp kenn ku nekk na ko gannaaw yow bu baax a baax nee na mi ngi ñaan li nga xam ne moom la ci euh, sëriñ Touba diggee sunu borom diggee ko ci loolee ñu daj ñu daje ci moom te loola weesuwut njariñal adduna ak njariñal la njariñal alaxira ndax wax sëñ bi wax na ne bihis diyaadul minnati bihis diyaadul minnati gàmm moom doolee ko rek xéewal rek xéewal ngay doolee ko ba faw fii ci adduna waaye nag ëllëg it lépp lépp taw fee nga fee gis ndax daf caa bokk falaa yu xaasabu xadaa képp koo xam ne yaa ngi ko yaa ngi taxawal gàmm na sa xel dal ci ne ëllëg kenn du seet say mbir falaa yu xaasabu xadaa mooy du seet sa mbir te loolu doy na waaye nag walaa darara doo dajeeg loolu mukk ëllëg ya nga xam ne ñëpp foofu lañu tiital kon nag ginnaaw deesu boo dee boo dee taxawu gàmm gi deesu seet sa mbir bu ëllëg itam doo dajeeg genn lor sëriñ bi ne loolu itam na ci ñëpp fasaay lor te naan mi ngi fas suñu borom mi ngi fas ci yàlla suñu borom tabaaraka taala yàlla na nu defal lool yi neen leneen la ca des nga xam ne loolu doy na tawfiq mooy ñu toppoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dann te mooy muhammadu rasulillahi a sina maahu ñam àndaloon sa sëñ Tuubaa wax ca xasida gëne gàmm gi guddi ku ko dundal ba bët set boole boole nañ la ca loolee فإنه كما انحبى يوم حنين وصبر ويوم بدر ونصر خير الورى المفهم nga xam ne kon guddi gi boo ko fanaanee ba bët set mën ngaa yëkkati sa loxo ne ca sahaaba yi laa bokk loolu sëñ Tuubaa moo ko ñaan moo moo ko ñaan suñu borom te yàlla defal na ko kon sëñ bi leen tawféex yi loolu da cay lu suñ xel attan suñ suñ nopp mën koo dégg waaye lan ca dël ëllëg rek la ñu koy xam rawatina nag barab bii ñu koy defee boo xam ne day barab boobu sëñ Tuubaa boo xam ne am na lu fi sëñ Tuubaa def ci xaas yoo xam ne loolee bu dul woon dara jar na ñëw sax di fi dajaloo di tudd yàlla ba bët set kon Seex Moussa Mouhamed Mbacké nee na mi ngi ci woo ñëpp te fas ko ànd ak noonu di ñaanal ñëpp jàmm. mbooloo mi ngeen janoo ci pàkk bu tedd bii ak jëriñam yu tedd yi ñu janoo Seex Mouhamadou Lamine Bara Mbacké mi nga xamee ni moo nekk ci mbooleem kuréel gi nga xam ne mooy saytu section yi Sénégal yi waaye mbokk na ak mbooleem jëriñ yi nga xam ni ñoo seq banqaas ci confédération bi. Baye Serigne Mbacké Guèye Ngathie mi nga xamee ni moo jiite mboolem seex si bàyyi sëñ Njaay Géey mi ngi nii teew ak jër yi ma àndal ñëpp jamaatul muridina saadixiina bàyyi sëñ baaraloo jiite ko suñ Cheikh Kan Ndonga mi ngi fi ba sëñ Cheikh Diouf mi ngi fi ak mboolem jëwri yi ñu ko àndal yëpp confédération ansaaru din bu Europe sëñ Mbow mi ko jiite moo ngi fi ak mboolem jër yu mu ko àndal yëpp euh, groupement diaspora Serigne Bara Sall ko jiite moo ngi fi ak mboolem jëwri yi ko àndal ñëpp ñu àndandoo ci ginnaaw Cheikh Amadou Lamine Bara ñuy mbooloo mi nga xam ne ñoom la sëriñ bi teg saytub liggéey bi mu doon woote léegi te mooy màggal gàmmook rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam te mooy guddi gi mu ganoo jamono Cheikh Amadou Lamine mi ngi yëkkati kàddu ànd ko jëriñ yooyu jëm ci mbooleem koo xam ne Mamour Ahibal Khadim li nusrati dinil xawim nga foo ko doone rek ci juróomi bànqaas yi Cheikh Amadou Lamine nee na mi ngi lay jottali ndigalu Cheikh Amadou Moustapha ci guddi gii ñu dëgmal muy gàmmoog rasulullah sallallahu alayhi wasallam fii ci Taif te ñun ñëpp nañu maase wuyu ci sëriñ bi ci woote bii mu woote te sunu njariñ rek tax mu woo ñu ko ginnaaw ñoo ko jox suñu bopp yaakaar ko àdduna ak alaxira ni ko loo ñu digal ñu def ko loo ñu tere ñu bàyyi ko Cheikh Ahmad Lamine nee na nañ feeñal suñu pas-pas ak suñ pëseef ci ndigalam lii ci gàmm gi tam mooy ñun ñëpp ñu teew mboolem ñi nekk ci réew mi nañu maase ñu wuyu si koo xam ne nekk ci réew mi nekk bitim réew na nga soññ sa njaboot ñoom ñëpp ñu maase ñëw fanaan si fii ci Taif ànd ak sëriñ bi màggal guddig rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Seex la bi nee na moom day nangu lu ci kenn ngànt wuute guddi gii nga xam ne sëriñ bi woonu ko ci ku amul ngànt koo xam ne am nga ngànt na nga xam ne suñu borom moo la ko teg foo mën a nekk nga teewlu boole sa bopp ci guddi gi ak foo mën a ne waaye koo xam ne sag jot may na la ko sa wér may na la ko na nga fekk si sëñ nyu Moustapha fii ñu ànd ak moom dundal guddi gi ni mu ko santaanee fas ko yéene dafa it na ko sëriñ Touba daan defee ca njaareem nga xamee ni gàmm yàgg na ko woote lool ah yeytu mawlid nabi min asasi wan xaadali faw xal muna fi talsasi sëriñ bi nee na maa nga tàmmalee gàmm ca asas mooy gàmm gu wéet gàmm gu néew mbooloo waaye nag suñu borom may na ma ci lu kawe sama jot ca talsasin kon nag loolu sëriñ Tuubaa daan gàmmoo ci njaareem noonu la ko sëriñ bi bëggee fii ci Taif moo tax mu teg ko ci loxol ahibal xadim li nusrat dinil xayim kon Cheikh Amadou Lamine Bara ñun waa ahibal xadim amuñu ngànt ci wuy si ñun ñëpp waaye yemul ci ahibal xadim rek képp ku di julli di wax ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulillah foo mën a nekk bëgg lu baax teg nga sa bët ci di ko Cheikh Amadou Sow daan dundale ci àddina weesu yëpp boo la sab gés-gés ak sag bëgg Depo ak noonu mo koy dundale noo ngi lay wo fi ci taif ñu and ko màggal ku di soppe ku bëgg lu baax noo ngi la cey wo kep ko xamne ya ngi wuy ci si ñi ngi lay ñaan soko may nga sol suñ tol gi ñew and ko ñun so amul ngam so amé ngant nag jéggal nañ la waye kep ko xamne ahibal khadim nga bok ci genn kurel ci kurel yi Cheikh Ahmadou Lamine neena mi ngi ñu lay ñaan rek way nañu waccio ak ndigalu bi tamoy ñu wuy si ko waye ñu wuy so ko ni mu ñu wowe te mooy suñ tëni yi ñu sol ko kenn kuy ñëw ngay dugg ci baas bi muy bëccëgu gàmm gi muy guddi gàmm gi nanga nga sol tëni bii ànd kook sëriñ bi ñu dundale ko guddi gi kenn ku nekk boo ñëwee na nga ànd ak dal ànd ak yar ànd ak teggin noonu ko Cheikh Moussa Bassirou waxee sëriñ bi waxee ko noonu képp koo xam dugg ci dëkk bi sa ndigal mooy nga ñëw ci baas bi ku ko mën nga yenn ci baas bi ñu waajale ko màggal guddi gi rawatina guddi gi nag ñun ñëpp ñu ci baas bi ci melokaan bi ko serigne bi waxe ànd ko yar ànd ko dal fas ko yene dundal ndax wuyu si kat waxuñu rek ñëw tok di waxtaan wala di xolé déedéet dañoo fas yene dundal guddi gi ni ko serigne bëgg ihya mawlidil bashir yahmil ayala wa duyur fihi sifaa'un li sudur li kulli hadhihi jantabi kon buñu wote dundal guddi gee tax ñu wote kon Cheikh Amadou Lamine ne kep ko xam nga yuluk ci baas bi muy beccet muy guddi na nga songu jikuy alquran yi wala nga songu jikuy xasida yi wala nga yersu ko tuddu yàlla ba ba ñuy salaatu noonu ko sëriñ bi santaane kenn ku nekk ñi ngi lay sàkku loo man ci teewal loo man ci barkeelu ci bis bi it ñoo ngi koy sàkku muy groupement ba mën a bokk ndax kat jàng alxuraan jàng xasida waaye bernde ci la bokk kon section yi regroupement yi képp koo xam ni mën ngaa barkeelu ci loolu yi nga xam ni gis na ni lu am solo ci guddi gàmm gi te mooy bernde yi lu jàppandi ñun ñëpp nañ ko boole indi ñu boole ko li li confédération bi dagale lépp ñu boole ko fas ko yéene dundale guddi gi waaye li am solo daal mooy nañu wuyu si sëriñ bi ndax woo nañu te kat ab jullit diggam ak mbokkum jullitam rek ak xam na ci su ko wooye mu wuy rawatina ki nga xam ne mooy wasilaam moo dox digganteem ak sëriñ Touba kon Cheikh Modou Lamine nee na sëriñ bi woo nañu nañu fas yéene. seeni muharram gii ñu génn niñ ko màggale woon sëriñ bi sant nu gërëm nu xolam sedd ci nañu fedd laxasaa yi fas ko yéenee gàmmoo gàmmo gu raw loolu fuuf ñu làq ci ngërëm yàlla na ko fi yàlla yàggal yàlla na ko yàlla wéral ak bëggam gi sëñ Tuubaa yàlla na ko am waaye lépp yàlla nañu ko ànd ak moom tabaat si munu sa noo ngi sox sunuy kàddu ci kàddu yu gaa yu baax yi ñu jiitu ci guddi gu màgg gi ñuy woote fii fi barab bu tedd bii ci ndigalul sunu yaakaar bop ñuy nuy feddali sunu njëbal ci mom diko ko feddalil képp ku nu ko bokkal di Cheikh mohammedul mustafa mom Serigne Mbacké mohammed yalla ko sunu borom jagal te wéral ko lool yalla na jekku ndigalam di wax ci kaddu gi ñu yëkëti di ci jital Serigne Fadilu Mbacké mi nga xam mom mom la do andal ci liggéey bi di Khadim nusrat din la xam ci section bi Serigne bi bolé nok mom ci section bi and ko ak rakam soxna Muminatu Mbacké ak sëriñ ba Bassirou Diop ak Soxna Khoudia Mbaye ak mboolem ñi nga xam ne ñoo jiite section bi ñuy wax ne guddee ngi ni goo xam ne képp koo xam ne lebaloon nañ la na leen fey ci guddi gii képp ku leen bëgg a lebal na nga leen lebal ci guddi gii ndax sëriñ bi la jaayanteel te sëriñ bii lii moom la nu digal amuñu beneen dox bu nu jëm bu dul ci bii nga xam ne mooy joxoñu sëriñ bi te mooy guddi gii ci la nu am nan ko ci def loolu xamit nan ko ci wax nan ci ñaq te nañ ci ñuqi te nañ ci ñuq jëm ñuy wax ne kon képp koo xam ne yaa ngi dëkk ci section bi mboolem kuy wax ashadu an laa ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu ak tarixa boo mën a bokk te def jullit rek ñi ngi lay woo ci turu kilifa yi ci bisub guddik màggaluk seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam gii loolu la doon jot li ci kàddu kilifa yi yàlla nañ ci dajeeg tawfiq Muhammadul Mustafa al Karim sunu borom yàggal ko fi te wéral ko te nu jekku ndigalam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di yëkkati nag suñu kàddu muy kàddu soxna Mame Bousso Mbacke mi nga xam ne moo jiite mbooleem jigéen ñi nga xam ne ñoo aju ci euh, regroupement des ay Ahibahil Khadim li nusrati diinil xawim soxna si nag dafa wax ne day soññewaat rek soññe boo xam ne yàgg nañ ko def waxtu buñ tolloo ci jat heure bu toll heure bii muy mawlidu nabi sallallahu alayhi wa sallam ci bis bi ni nga xam ne noonu lañ ko war a dundalee soxna si nee na mi ngi ciy soññ ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw rawatina nag ci wàllu soxna yi waaye nee itam di leen bàyyiloo xel bu baax ci bis bi ak bëgg-bëggu sëriñ bi nga xam ne bis bi ñor na ko lool ndax bi mu sosee liggéey bi kat dafa waxoon ñaari bis yoo xam ne dana woon moo gën a nekk yitteem muy asruna muharram ak mawlidu nabi sallallahu alayhi wa sallam soxna si nag nee na mi ngi sant bu baax mboolem section yi ak regroupement yépp ci liggéey bu rafet bi nga xam ne liggéey nañ ko ci asruna muharram ba mu jàll waye mi ngi soññaan ñepp nak ci bis bi nga xamne mom lañ dëgmal muy mawlidu nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di guddi gam ak yitte ji nga xamne mo la ko serigne bi jox neena ñu bàyyi ko xel bu baaxa baax bu ñu ñewé ci bis bi neena li bis bi laaj lepp mi ngi soññaan mbolo mi ñu gën ko bayyi xel ndax bis bi kat bisu tawfeex la bisu mucc la bisu am ay xéewal la kon bis bobu neena bu yexé kenn ku nekk waru ci tok ci neen te serigne bi kat lim santane moy jang alcorane jàng xasida salaatu ala nabi ak askar lépp lu ci waay man rek nee na mi ngi la koy sant bu buñ xëyee ñëw yendoo ko fanaane ko bu asamaan set nee na bu kenn am benn yitte bu dul yitte jooju ña nga xam ne itam ñoom la suñu borom féetale ci wàllu bernde itam nee na lu ci waay man rek na nga ko def ndax lépp kat lu ci waay ma di def bu mu ko yéem waaye ndax bis bi yeeyoo na lu ëpp loola kon mi ngi koy soññ ñëpp di leen ko fàttali bu baax euh, commission Euh, culture tamit ñi ngi santaane ne bëgg nañ section bu ci nekk jàng fukki kaamil ak ñaar ñu def ko addiyee rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lal taayee ko bis bi bu ñu ñëwee ci njàng mi nag li ñu fi jàngaat lépp ñu boole ko ci waaye bëgg na section bu ci nekk moom jàng fukki kaamil ak ñaar indaale ko te lépp loo xam ne waaye jàng na ko itam ñu fexe ba yaxal ko ba nga xam ne danañ ko mën a jébbale nee na loolu itam yitte ji la waaye mi ci soñ ñëpp di bàyyiloo xel bu baax jigéen ñi ci col gi ni ko sëriñ bi santaanee ndax sëriñ bi kat yitteem mooy yitte Cheikh Mouhamadul Mountakha sañ Mountakha kat am na ay digle yoo xam ne digle na ko ci yoonu murit wépp waaye digal na ko itam mboolem ko dib jullit ci muy solub nit ku yiw ci aw melokaan woo xam ne noonu la jigéen war a mel na xale yi nee na loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax kenn bu mu fi sol lu gàtt wala lu yaraax wala loo xam ne ku ko gis nga xam ne lii du colug nit ku yiw nee na na ñëpp yiwee loola nag ñi ngi ci woon waaye neen ab soñña la rek ñu gën koo bàyyi ak xel bu baax nee na itam mi ngi santaane bu ñëwee ñu ànd ak dal bu baaxa baaxa baax ak ay teggin ndax barab bi ñukoy koy kat amna lum laaj ndax seen ci kanam señ muhammad fi lañ koy defee ak sëñ abdul fatah kon nak laaj na lool ñu and ak yar ak dal niñ ko daan defee rek soxna ci daal neena mi ci soñ ñepp goor ak jigen mag ak ndaw ñu defee ko dañ ko daan defee ndax ñu daje ci ngeerumul sëriñ bi te lo xam kat dañ koy def and ko suñu kilifa gu baax gi mu nekk ak ñun ba bañ ba bay fi di jeex kon loolu war nañ ko bàyyi xel bu baax baax neena mi ci soñ ñepp di ñaanal ñëpp nag waaye nee na itam mi ngi soññewaat ci bernde yi bu baax a baax a baax ci section yi ak mboolem koo xam ne itam da ngay def katu lu baax rek ndax mawlidu nabi moom lépp loo xam ne nit def na ko ci ci ci bernde ni ko sëriñ bi waxee rek lu mu tuut tuut tuut bu mu ko xeeb waaye lu mu bari bay itam bu mu ko yéem ndax si rasulullahi yay jayoon na lu ëpp loolu kon mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp waaye di ñaanalaat bu baax sëriñ Moustapha moom sëriñ Mouhamed suñu borom gën ko fee yàggal may ko Mouhamadou Lamine mi ci taxawayam bu rafet bi nga xamne mi ngi koy taxaw ci liggey bi ba tax li lepp resulta bi ñu am bepp ñu am ko soxna maam sa neena mi ngi koy sant bu baax di ñaanal di ñaanal Cheikh du Fadal di ñaanal itam soxna Mominatu mi nga xamne neena nee na ko lool ci liggey bi ndax sa bu geso gis ko neena mi ngi koy ñaanal sun borom katanal ko ba liggey bi lim ci bëgg lepp te yene ko sun borom dimbale ko ba man ko def ni ko bëgge dañ and ko mom mi ngi nuyu ñepp di gërëm salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërë ngeen jëf mbokk yi kon bis ba ngok wote ba ngok waaye mi ngi dajeeg àllarba guddi fukki fan ak ñaar dëppoo gi itam le 27 ci weeru septembre incha allahu taala fii ci Taïf ñi ngi bàyyi loo xel nag mboolem koo xam ne mi ngi ñëw col gi nga xamante ni sëñ bu taamu na ko nañ ko daal di gën a dëggal te indaale ko ci barab bi ni ñu ko waxee boo ñëwee xasida yaa ngi fi alxuraan jaa ngi fi kurus yaa ngi fi noo ko bëggee rek noonu ko koy amee waaye nañu gën a teewlu ci bis bi di fàttaloo nag ki nga xam ne mooy Cheikh Abdoul Moustapha ku bëgg xam kan mooy Cheikh Abdoul Moustapha mi nga xam ne moo wate gàmm gii watal ci sibatu saadixal muridu bi iqtisaar arbaatu nasamtuha xaw tirar tiraar loolaay la Bamba wax ca gaayee saadix déglul nga xam ne kii soree naag faasix asiqu fi mahabbatin sayxi abad nam soppe sayxi Bamba bir na kuy murid su mam tisaala ambi gi ay su warat baatum ndigal fu mu ko dégg na bërit te dootu am ci soxla fenn fenn li fek ndigal lay yegg loola bir na watar ko mat laxan walaw du dox di gaari yi sëriñ moo tax mu raw bi baatinin àll yi fii maaxadraaw Cheikh Bamba fóot naa xolom ba doote bew kon bis baa ngoog bis bi Cheikh Moustapha wootee ngoog ci Taïf yàlla na ci yàlla yóbbu ci jàmm ak wa wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.